Liquide vite fait, l'encens volcan Johnny Johnny, la bague magique, le t-shirt moulé et Tcherno Moulé Sow, Khalif général des djinns, vous offre votre sketch Ramadan Moulé. Cher Moulay Sow, voici une très bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? s'agit d'une bague magique, une bague magique qui est amenée par le khalife général des djinns, Thierno Moulay qui ne cesse d'impressionner les Sénégalais. Donc une bague magique qui vous permettra d'avoir de l'argent. Dès que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de boulot, si vous avez euh, cette bague magique, vous serez tiré d'affaire. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez

nelaw la. Eh. waaye eh, biig de mook jabar ci xaw ma lu nu mën a jote waaye ay yuuxum rek lay doon dégg. Eh. yuuxul na lu mu mën a yuuxu. kon yow yuuxu yi dégg nga man ma defe ne sàcc la. Hmm, yow kër gi dina toj doo ko yëg man dégg naa leen de waaye dama leen a faalewul yuuxu na ba sonn. man de man de bu xamal laa ko tegoon ay sàcc. boo demee day kuurit ba a di mi ngi nii mel la kuy bu daal. ah man démb damaa yéem jabar ji tamit temps yi noonu la waaye ma may dugg naa ah, a tax pourtant dafa baax de ku baax la. ah mais la indi ñoom ñoom ci kër gi ba tey day ak jabaram noonu siisu naan te ah, waaye bàyyi leen rek man daal fi ne addina bi moom lii lu waay mën def rek boppam waaye kii man dama réccu sax lu ma doon bokkee ak moom ci mën nga mën ngaaral mankaara jabar jéegu ji bu dog lii lii tan ngeen di wax ay eh ma ne tan ngeen di wax ay yaa wax da ngeen a foog ni ngeen wax yëpp déetuma to maan yéen déet ngeen di wax yéen neex waaw yéen yan yan ya waa <laughs> tan tan li ngay waxee nag looloo waaye yéen dinañ la dof waaye yan la waaye koy ni yeetaan. borom kër nii mel xale bu ndaw. waaye Ndonga may man ngeen di yeetaan nii yan ya. te te te taa. maa ngi dee talal la. dégg naa yéen ngeen di wax wax yu man maa doon yuux bi man ya. wala loolu yuux. <laughs> ay waay tu tamut tamut tamoo yéen daya <laughs> ay waay may wax ngeen di yeetaan yéen a ngi yeetaan seen mucc yéen a ngi yeetaan seen mucc ba boo leen xamoon ñi nekk ci këy gii do waaw waaw te rek may rey rek may wax ngeen di tataajoo nii waaw may doone waata bàyyi li nga def waaye tey da nga wax normal waata lan la ni may waxee tayu moto daa am yu ma tayu moto da daa am yu ma mbéj bi tudd di sëy jaa ngi tëj tëjoo yéen ko daa am yu ma mbéj biit tudd biit maa maa yeewu di dem ci waañ bi di di xëdd. waaw fekk fa benn jinne tuus tondoyong tuus tondoyong yaa ta fekk jinne bu xam nga jinne yëpp tuus tondoyong moo ci gën a gayaaw moo ma mbéj nii tey ma def. tan ngeen toog. bii yaay tuus tondoyong moo ma eh, sama yàmm bi. ah baax na. sama yaamiñ bi topp mooy moo yooyoo ko toppi nii de yooyu tax may waxee nii de etor yaa ngi tey may tee naa ànd ak day tana day ah di tuus tuus yi ma day mën na yeen a day de <laughs> tuus tonton bi ñu yeen ñëpp ci kër gi yëdëtt de yu yee yaay dox waaj moom ku ciy dugg guddi nañ ko waajaat man de xaw naa dee bitti duddi <laughs> daf maa mbét bi ma mbéjee bi <laughs> parce que sëriñ Tuubaa maa ngi dee ah. ji yëgoo ko sa jëkkër ji li muy wax di nappi nappi na ta ta ta ta tii taar yóbbu dépense bi waaw di man dinaa jox dépense tax waaye damaa bëgg ñu waxtaan tooday tooday tooday ngi yaayee tooday ma expliqué daa am yu may expliqué. waaw lu de Kole lu dox tax sa nuyu ñu nii danoo bokk fi néeg bu ñu fanaan. waaw tooy doo toog nii tooy ah tooy na yaa maa des de. Ah. xoote ni muy yii doo. Ah. wuy ma tooya. Euh, yow yi yi ma day bii ump ya xam nga yi ma day yi ma day xamoo dayu man yi ma day yaaw xamoo ko yow. fii loolu yi ma day ji. waaw waaw waaw mais attends yi ma day dafa am lu la day. lu lu am daf laa day day ay day. waaw yi ma day yaaw yi tax sama yàmmiñ bi di tax nii may waxee nii yow xamoo it nii yaa daan waxe yow démb yaa ma fekk ci waaj bi boobu. waaw yi ma day mooy yi ma mbéj bi. yooyu yooyu yooyu dëkk sama yàmmiñ bi nii. waaw ñoom dañ ko gëm. ah demuñu te dañu ngi nii di ma yeexal. waaw. da nga nekk situation. waaw bàyyi leen lépp te maa maa maa ñoom ñoo bokk nawet bàyyi. ngeen ne neen may yeetaan yi bàyyi naa leen a jaayee naa leen am yi yi téemi ya dépense. soo la lëmb allah tubaar waxal jaww bi ngi doog a jot. la doone doone dayay dayay ami tooy waxut ak yow man yii ngay wax ay dayay ya damaa bëgg naa ànd ak day. dégg nga day liñ fii doon day eh, eh, bi dina tag kii gi di yii yan ya eh, ami. damaa béyoon njëy yi ma béy njëy yi bëgg a yett di ko bokk ak ay jinne te nit yi ne ci këy léegi béyatuma njëy yi léegi nit ñi yaay bokkay pour mu këyee ndax yi ma day bi ma béyee njëy yi ma day. ñaaka ñaw weddi de gis bokk ca ci xëy suba rek soppeeku maanaam da ngay togg pour waa kër gi yëpp ma bokk tag waa kër gi yëpp di yeet man ma jël junni dem ci marché waaw togg ak sa famille bu bari bi tubaar ñu gis tubaar yi kat abi yaat yaat naa jox ay ay toit mi ngay débouillé dama débouillé da nga woote nag soppeeku fi ma ñi dama nga débouillé fii teemi bi baax na débouillé jigéen day débouillé jigéen bu baax day débouillé déedéet bono bono de yaay tey yee eh, yow bono yow bono ami <laughs> ami yow bono. base bu kott jëkkër jëm fësal dawaale ah dama bàyyi naan nit sax dafa baax dama bàyyi naan te ñaan boo ne baax na rek bu xëy suba doo yéen bàyyi tii ngi yaa yaa yeneen tii. daa ñëw ci kër gi si yéen da leen wooyee sëy yéen sëy woo yéen seen jëtte yi moo tey ci <laughs> sama mag gi tam la waaye. sama mag gi tam la waaye. ah waaye sama mag gi. waaye feebaru kat. neexee si wala lem laa biñam wi di rek muy defee yeetaan yéen yeetaan yéen àdduna ngi noonu yeetaan yéen ay waay maa ngi dee ñëw rek yëpp tam papa tama yaay bu fi ne toog xam gis ngeen net samay mbott ma ma yaataa yéen daa ngeen yéen doo nga fi net samay mbott ma yaataan yéen ngeen net fii di ma yeetaan waaye ay. te mbott la ah Ngone Ngone. kon sérieux na li fi sérieux na ah du ma joxee ah tiifa bu ñu mbéj tiifa te bañ ma mbéjee yaa ñàkk doon tiifa dama mbéj mooy tiifa tey waaw dama màtt ñëw damay dem yooyu ndoom ah amit tooy na danay caataan waaye nit ñi wooy nga wooye todd ndodd naan danaa bëgg a neew waaw baax na yi yi ma mbéj bàyyiwut tenn de nee na ma todd dégg dégg nga. Ah, yi nekk ay eh, waay ndaw ay eh, waay. te te yeew am na de. waaye kër gi lan moo fi xew nii. mooy yi fi xew baax na yéen yéen yéen a yéen nag. ji gëm naa ne nag toj nañ kër gi. waaye kii mi ngi nelaw li ci kaful di yow Kole. ku nekk ak ñooy jinne ji di jàppee nag ñii ci ay neew ñii ci yeewande ñii ci jéemuñ du tatt ñii ci ay yeetaan waaw yeetaan yéen <laughs> yeetaan yéen. man de yéen da ngeen foog ni ngeen di yeetaan yéen tey teyoo yéen to de jinne ji baax na kii dina yaay ku nekk ci këy gi dina laal kenn ku nekk eh man du ko fi xaar de man man nee na moom moo yenu woon ndaa yi ndaay yi ndaa ya ndaa yi nekkoon jinne bi nekkoon ci ndaa waaw nee na moo tey yenu woon du ma jaay ñu la leen de xamal naa la ko ngóone yow nag xam nga amagoo jëkkër yow moom jinne yi buñ la duggee waxuma la jëkkër waaye diñ fi gën a sax man nag sama jëkkër laay jël boot samay doom jël sama jëkkër jàpp ci loxoom ñu génn wuti lu yaas kër gi kër gi moom dama génn fi jot na ah. aywa danaa bu dafay jinne bi jàpp la de <laughs> danaa bu dafay daan ma boot ma aywa yaa ma tuddee dëtt nag yow bu ma tudd yow yaa tax ma tudd dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee ca dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata seen liquide vite fait cuuraay volcan joni joni bague magique ci Cheikh Toumoulé ak Thierno Moulé saw ñoo leen doon may seen sketch Ramadan Moulé. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi am amati mbégte di leen ziar ci tele bi nga xam ni mooy feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ. moom ngeen di gis ñu leen koy filmeel di leen ko waneel en direct di vite nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp moo xam Sénégal fépp ci àdduna vite fait defe naa ni euh, saa su ne ñu ne leen képp ku am jafe-jafe ci sa wàllum liggéey képp ku am bëgg a tukki am jafe-jafe ci wàllum visa képp ku nekk Sénégal wala nga nekk foo mën a nekk ci bitim réew nga am jafe-jafe aussi ci sa liggéey mu kale fee bi moo ci man dara te vite fait bi nag amul fenn foo ko mën a amee lu dul kër Alaaji Thierno Moulay Sow keneen ku ñëw ne feneen di leen jéem a woon lu mel ni jàpp leen ni da leen di nax